fan yii ci réew mi ak réew yu takku yu ko wër am wal ak wale daf noo gane muy ndox mu bari moo xam ne weesu na fa mu waroon a yam dugg ci ay kër dugg ci ay liggéeyukaay ba jamono ji ñu toll mbooloo mun a gàññ ñi ngi toog mënuñoo dem mënuñoo dikk moo ngi ànd ak ñoom bu baax a baax ci tiis woowu tamit ndox mu bàyyi ko ci suñu borom mu amoon nag lu tiitloo xeet wi ndax am na ñeneen ñu waroon a taxaw ba su ndox may mel na melit su ndox mi wàccee nii mu wàcce it mën naa bañ a mel nii mu mel waaye la ci tiitloo xeet mooy wax nañu ne ña ne ci seeni loxo te ñu yëngu ci lu tudd lu ñuy tuddee politique ñoom duñ fab alal di ko def ci suuf waaye lu ne fàng rek la ñuy def moo tax la fa war a jële ndox ma saa bu ndox bare gannaaw ci suuf la war a nekk xel xalaatu di ko fa def ndax ñoom lu ne fàng rek lañuy ñuy def loolu nag alxuraan joxe na ci misaal ŋàññi ko bu baax a baax a baax a baax a baax ba ci jiitu bokk yi nit ki bu fekkee ab a ngi dund ci diine dëgg-dëgg faw mu bàyyi xel jiital njariñul keneen tekke sa bos maanaam fexe ba keneen jariñu nga soog a jariñu waaye su fekkee dañuy jiital kenn ku nekk mooy jariñu su desee keneen soog a jariñu tuuti su desut mu yam fa war naa tiitloo aw xeet ba ne xel xalaatut ñiy fab dara di def ci suuf ndax du lu ñu mën a gis waaye lu ne fàng rek la ñuy def def mu ne fàng nag alxuraan ŋàññ na ko joxe na ci misaal mu yéeme bokk yi diggante waxuñu diggante jullit ak moroom ma rek waaye diggante nit ak nit lislaam daf caa jàngale nu ñu war a def suñ ko jàngoon ba mokkal ko fu ñu jëm jëme ko fa kenn du seetaan kuy sonn danga nga mën ca dara lu dul la nga cay man mooy la ne fàng rek waaye lay ne ca suuf kenn du ko gis moom doo ca man dara du ci jëm dara loolu xol bi dund war na ko moytu aw yaramam war caa daw te xam ne fii du ñu fi yàgg dafa am fu ñu jëm ëllëg te kenn ku nekk yàlla dana ko laajoon lam yoroon fii nu mu ko yore woon la ci diine jàngale ñu bari jaar nañ ci jaaraat waaye am na lu yomb ñu te ngi nii koo xam ne daa xool dëkkandoom xam ne mën naa def li ñuy wax buun buun mooy gëj a lekk yàpp mu jàpp ca ganaar yam amoon genn ganaar yónnee ko ko kooko xool ganaar gi ne ganaar gi dal soxla naa ko waaye diw ma ko gën a yittewoo daa mel dem it ko diw ñuy wër ba mu àgg ci kër gi ko jëkkoon a joxe kenn ku ne ba mu koy laata jëriñoo xool ne moroomam moo ko gën a yittewoo muy benn ñaareel bi it xareb Yarmuk jamono Seydina Omar radiyallahu anhu dafa am ku bokkoon ci xare bi bi pënd bi wuree muy wër mel ne mbokk moom ànduloon te gisatu ko woon ba mu koy wër ba gis ko ca biir ñeneen la lasiim kenn mënul boppam dara mu xàmmee ko deret ja sang ko ba mu ko yëkkatee ba mu wéeru ci kawam mu junj ko ne daa mar ci misaal mu xelli ab kaas di ko ko jox ba mu ko koy bëgg a sexal mu dégg kuy wax naan kii te doon te bëggoon koo jox kaasum ndox bi ne ko dama yët ko kee daa mel ne moom ko gën a soxla kooka bañ demee ba di ko ko yët mu joxoñ keneen ba ñu laata àgg ci keneen fekk mu faatu mu wàññi ko waat ci a jot fekk mu faatu mu jëkk agsi ci mbokkam moomee doomi baayam ja fekk mu faatu ñun ñëpp ñu faatu kenn jëriñu woon ndox ma ndax kenn ku nekk da ko yéene moroomam kon noonu la ab jullit war a dunde diggante nag mbokk jullitam bu ñu ko gën a yaatal diggante nit ak ñam mbokkal réew moom dëkk rawati dëkk ba mu dëkk rawati nag quartier ba mu dëkk kon li bi sallallahu alayhi waxoon ne gëm yàlla mënut nekk ci jullit bi mukk gu wér lu dul day njariñ jox ko ay ñam ko war a jox ña ko gën a yitte woon jariñoo ko bu desee baax na bu des bu mu toog ndox mu bari li nga xam ne moom la taw moom suñu borom subhanahu wa taala ñu ngi ko ci sant waaye ñi nga xam ne gàllankoor na leen ba mënuñoo dem mënuñoo dikk aaja nañ ko leen dimbali bokk yi nag bu ñu demee ci réew moo xam ne lu ne fànn rek lañuy def waaye xamatuñ def ci suuf yàlla nañu yàlla musal bi ñuy dugg ci boobu dayira su ñu demee ci alxuraan dañuy fekk mu wax ne moom mooy wàcce am ndox ndox nag su koy wàcce ba mu bari danga gis am puurit ca kaw puurit moomee nag lu mu baree bari moom nga gis ci kaw waaye ndox ma ci suufam moo am njariñ kon li ñuy def ci suuf mu ëpp njariñ li ñuy liy feeñ ci kaw bu dee ndox am puurit lay doon bu dee soow mën naa doon aw niw soow niwu mooy ne ci kaw waaye soow ma la ñuy jëfandikoo moom lañ gën a jëfandikoo niwu kese kenn du ko jëfandikoo ay yoon yooni yoon ba noppi di ànd ko gubéer waaye kon la la ci suuf niwu moom la ñuy jëfandikoo moom fi ñuy wax ci alxuraan naan di jàngale tawxiid dëgg-dëgg di ràññale diggante dëgg akuk neen anzala min alsamaai maan fa saalat awdiyatun bi qadariha fa xtamala sayl zabadan rabiya dangay ngay gis waamew ndox woo xam ne day maasale xur yi fu dem ba xaw a xat ci ndox mi mu jàll bu fay sotti ku tëë bàyyi da ngay gis puurit mën a gàññi ca kaw kon lañuy ñuy seen ca kaw amul njariñ puurit moomee mëndalul kenn mënta toggal kenn mënta suuxatal kenn waaye la ca suuf moo am solo muy ndox ma lim na ca it wa mimma yuqiduuna alayhi fi nnaari btigaa xilyatin aw mataacin zabadun misluhu ñi nga xam ne dañuy liggéey ci wàllu wurus wala xaalis it bu ñu upp ba mu yàgg danañ gis puurit mu jëm ci kaw waaye la am solo du puurit ma mel na ci kaw waaye lan la ca suuf puurit moo am solo kadalika yadribu llahu al amthala kadalika yadribu llahu alxaqa walbatila fa ama zabadu fa yadhabu jufaa murit moom su fa ndox ma yàggee tuuti danga nga xam ne li ci kaw amul njariñ waaye la ci suufa am njariñ ndax ngelaw a ko fay jële ca lay waxee ne wa amma ma yanfau nnaasa fa yamkusu fi l ard puurit mi ci kaw rafet loolu weex tàll amul njariñ waaye la am solo mooy suuf si la na ca suuf puurit ma kadalika yadribu llahu al amthala lilladina stajabu li rabbihim ñiy def te yàlla tax moo ñene ca suuf waaye ñi def lu ne fàng kese mooy puri mi la ci kaw lilladina la li rabbihim alxusna walladina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fi l ard jamian wa mithlahu maahu laftadaw bihi ulaika lahum suu lxisaabi wa mawahum jahannam wa bisa almihaad kon bu fekkee ñi yore politique bi ñoo war a liggéey ba bu ndox ñëwee dem te loola la koy yóbbu ci suuf lay nekk te duñ def luy ne ci suuf ndax deesu ko jis lu ne fàng la ñuy def la taalifkat ba dëkk suñ mbokkum ko di waar moo doon wax ci politique ba yàgg mu ne politique yi màññi politique yi màññi mooy politique su fekkee pas-pas la du pas-pas ba gën ci pas-pas su fekkee ay wax la du gën du wax yee gën ca wax ja su fekkee lu ñuy def la du lu gën ca lañuy def ndax koo xam ne ña nga àndal boo nee weex na ñu ne tàll la ba boo fa jógee keneen ñëw ne daa xonq ñu ne cooy keneen ñëw ne daa ñuul ñu ne kukk kese waxuma la ñoom ñooy ñëw di dem waaye dañuy mugg sax waaye delloo nit ñi far moo tax ku ne du def dara ci biir suuf bu mu yaakaar lenn lu koy jëlee ci kaw lu muy lu koy jóge lu koy lu muy lu ko lu koy ñëwal di war jóge ci suuf si su fekkoon ne lu ne ci kaw dong la ñuy defar mën koo laal euh, baykat du jël dugubam di ko sotti ci suuf si loo bëgg mu bari da koy dénk suuf soo bëggee mu barkeel da koy dénk suuf li ci suuf rek mooy da am njariñ kon boog <coughs> kene politique yi ma politique gënut baat bi ci wolof boo ko waxee day metti baaxut la wax bu dee ay wax la du wax ja gën ca wax ja su dee lu ñuy def du lu gën ci la ñuy def su dee lu ñuy pas fas la du pas-pas ba gën kon bokk bokk yi am nañu sonn lool képp koo xam ne mas ngaa wale xam nga ne ndox du ku ñuy dëkkal xanaa naan wala jàpp walla sangu wala gupp mooy fóot wala raxas waaye ku bëgg a jëfandikoo ak moom ci néeg ak yi muy jur moom moom ndox ya cay juddoo yépp bëgg ca def say aajo danga xam ne ndox du kenn ku ñuy dëkkal ci anam gee kon yaram war naa daw bu baax ñi nga xam ne fan yii jël nañ seen alal ju bari di ko joxe lañuy joxe baax na lool waaye nag nañ bàyyi xel ne am na seen mbokk yu sonn lool suñ jëfandikoo na boroom ganaar ga walla boroom guuxum ndox ba ñooñu danañ daal di sant léegi ndax kenn ku nekk dana wane war naa wane war naa mën a wane man-manam akum njullitam ci bokk yooyu bokk yi am na ñooñ am wal xañ na leen loo xam ne mënatuñ koo am bokk yi néeg boo xam ne ndox ma daa ñëw ba mat ab meetar ku ne xam na ne yañ dencoon ca waxande ya la cay ya cay yàqu yére ya mbubb ya moo ci gën a néew mën na faa denc alal mën na faa denc ay diplôme yi nga xam ne suñ koy wut suy wutub liggéey moom lañ koy laaj mën na caa sa nopp door koo am wala duutu ko am kon boog ñu aajowoo ndimbalagu noonu ñi nga xam ne ci seen ay yoxo la war a yóbbu ndox mi nekkit nañ xam ne layoo bu metti mi ngi xaar ëllëg nañ def lañ ca war a def tàmbalee ca lañ man ba ba muy sotti ndax loo xam ne bokk yi at mu jot mu ñëw at mu jot mu ñëw te xam nañ waxtu muy ñëw wërtu bett kenn kenn rek lañuy ñuy waajal koo xam ne xamuñ koñ lay ñëw te wóor nañ dana ñëw muy dee gannaaw de nag fa la problème yi tàmbalee am na boroom xam-xam bu dëkkoon Tuubaa rahimahullah wa rahmatullahi ba mu déggee ñu ne diw faatu na wala diw dee na am na ñoo xam dañuy faatu ñii di dee Sëñ Abdou Xaadir ne noon ab julit du dee day faatu ku dul ab julit nag day dee kooko nag ba mu dee boroom xam-xam ba ne tey ji la ma sa def erreur ci dundam tey rek la ma sa def ak erreur ci dundam bi mu dee rek ndax gannaaw dee ci la léppam di leer yàlla noonu yàlla musal ci loolee kon boog laaj mu ngi ñëw ëllëg li nga ne woon danaa ko def dénk leen ma bañ dénk la loolu yan bu diis la yan bu diis la ndax yaa ne mën naa ko moom la alxuraan di wax ne inna aradna al amanata ala alsamawati wal ardi wal jibaali fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha ba yàlla bindee yi muy bind yépp xool ci biir mbindeefam yi amaana muy kóolute boo nee dénk leen ma ba ñu wóolu la dénk la suñu borom nee na yàlla nga lu diis ndax ba mu ko wanee asamaan ne ko kaay ma dénk la dana yii man koy mënuma ko yàlla attanuma ko mu ne suuf si mu ne sama yaatu waaye li muy yaatu yaatu ak li may mën a yanu lépp moom kóolute moom amaane moom dis na ci man seetal keneen mu xool doj yi ne yëng ci kaw suuf si nga xam ne léeg-léeg nga jurub dëkk di seen doj wa dox lu yàgg door ca àgg te du tax nga mën a seen njabaxtan la bam ko ko gaarlee dane ko yii jéggal ma subhaanaka wa taalaytu waaye jéggal ma ndax lan ragal la ca nekk ci yow lañ wóolu yow lañ yaakaar te bokk yi da ci am yoo xam ne war naa daw yaram nag koo xam ne bokk yi booy dem koo taseel ci yow dañ koy wàcce laata ñuy xam kan la moom jàll nga ba noppi koo xam ne dëkk boo agsi bala nga fa agsi ñu defaraat ko kër gooy dal waxaale wuñ ko soo fa yendoo ba wala nga fanaan fa fan yoo fa mën a am ñam yañ la fay jox waa dëkk bi mu suñ koo mën a am wala léeg-léeg te tuuti lay doon fa gën lañ lay yóbbu ñañ yaakaar na ñëw fa gën it lañ lay wan duñ la wan mukk ku wañ so ku wañ so bëgg mu ne ci sàppe su dëkk si ndax lan bëgg li ngay gis lépp rafet li ngay dégg lépp neex a dégg loolu nag kum dawut aw yaramam dara du daw yaramam kon boog ñi ci war a jàpp ñëpp nañ xam ne yan bu diis lañ yanu mën naa ko ka doon wax naan mën naa ko mën naa ko mën naa ko dañ ko mujj jël ci loxoom rek ndax mënu ko ka doon wax naan yes we can dañ ko mujj jël ci loxoom rek xam nañ ne mënu ko doon koo topp nag mënoon naa ko mën naa ko ca la ci jiitu mooy tas yaakaar ji tas yaakaar la mooy wax mu dañ ndax mën naa ko bañ yaakaar la defoo ko kon dañ na wax ju dañ la kon nag gannaaw àdduna jeexagut dara weesu ko sa dabaatal ndax kuy dawal wata ba ci aw tund su wata bi néewee du taxaw door su bañee oto bi dallu gannaaw du taxawaat day jóge fa mu fa nekk rek dal si xel wu ko doole muy muy jógaat dara gannaaw ay nawet a ngi ñëw ci kanam nañ futtiku ba nawet yii ñëw moom su agsee wuuteeg daaw daaw ji nekk wuute ak ren su boobaa lépp baax kon boobu noo ngi gën a dénk suñu bopp di gën a dénk ñëpp bokk gi nga xam ne moo dox suñu diggante ñu doxal ci na ganaar ga demee woon kenn ku ne jàpp ne diw la ko gën a yaayoo ba mu dellusiwaat ci borom ganaar ga waaye nañ ko jàpp it guuxum ndox bi ñu leen bëgg a jox ki nga xam ne ndox naan ndox dong la yaakaar ne bu ko defee dundaat gis ko gën a yittewoo mu jox ko ko nañ dugg foofu ñun jullit